cantaakoon ne. fu ab cantaakoon ne. te bu ma nee cantaakoon. nee te bu ne cantaakoon. mooy ñi na mooy ñi ànd ak moom Serigne Saliou Thioune. man ku moom. nee na moom ku àndul ak moom. ak dégloo nee na moom ku àndul ak moom bul tuddee sa bopp cantaakoon. ndax. nee na ndax cantaakoon. bu nu ko dee wax. nee na Serigne Béthio tax ñuy wax cantaakoon. nee na te moom mii moo fi toogal sëñ Béthio nee na bu nu ndax sunu bopp nee na bu kenn ndax sa bopp ku mënta tënku ci ndigalul sëriñ Touba ku mënta tënku ci ndigalul sëriñ Touba mënoo ànd ak man mënoo ànd moom moom mi am ndigal di xalifa di xalifa baayam bul tuddee sa bopp ab nee na bul tuddee sa bopp ab cantaaku nee wutal weneen tur nee na wutal weneen tur waaye bul tuddee sa bopp cantaakon nee na cantaakon yi nee na mooy ñi ànd ak moom nee na loolu nag dafa war a leer sëriñ bi nee na loolu danoo toll ci ci jamono joo xam ni daa war a leer mooy cantaakoon. cantaakoon. ba tax ñuy wax. ba tax ñuy wax. mooy cantaakoon bi ànd ak. nee na mooy cantaakoon bi ànd ak moom sëriñ bi. waaw. maa ko nag. nee na kon nag. ñun am nañ chance. nee na ñun ñii ñoo am chance. Serigne Touba dimbali nañu. nee na Serigne Touba moom dimbali nañu. Serigne Mountakha ñaanal na ma. nee na Serigne Mountakha na ko. nee serigne moutakha Mountakha ko nee ko nekkal ci lima nek bu don ben ñaar ñetti nit ño and ak yow di nga am ndam nee ko nee ko dara mënu la tey am ndam cheikh serigne Cheikh mom serigne salihou ndeem yaa ngi tënku ci ndigal. Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacké nee na ko ndeem yaa ngi tënku ci ndigal. sañ nañoo am ci yow yaakaar sañ nañoo am ci yow yaakaar nag. kon yow it um, wéyal rek. nee na Serigne Cheikh nee na ko kon yow it wéyal. nee na kon nanu ci ne. nanu waajal 17 avril. nanu waajal 17 avril. nan ko waajal. Serigne bi nee nañu waajal 17 avril. defe ko defe ko. musuñu ko ne defe. defe ko noo xam ne mësuñu ko ne defee. fa ko borom bàyyi woon. fa ko borom bàyyi woon. nañ ko fa jëlee. nañ ko fa jëlee. aj ko ca kaw aj ko ca kaw.